Aïcha mi ngi noonu Souka Mbaye euh, nga dalal say gan. Euh, ajaratu euh, kon nuy waat rek ni nga xam ne rek moom moo di mbokku téléspectateurs yi tey ñoo xam ci ki nga xam ne rek moom moo di El Hadji Malick Guèye borom Latmingué. waaw moom souvent dafay dafay protéger ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall. Ah. ñu fa jógee waaw. <laughs> El Hadji Malick Guèye borom Latmingué. ñuy nuyu benn dëkk ñaari gaar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm. Mm-hmm. donc El Hadji nuyu mm-hmm. nañ la waay Guèye borom lat menge eh, digg digg yàlla sant yàlla di nga di mm-hmm. sali le président Macky Sall di nga di que c'est le président boo xam ni il exceptionnel di nga di il travaille la pays di nga di loolu nekk loo xam ne am solo la eh, di leen nuyu di nuyu wàllan mbenge di nuyu Saloum di mm. nuyu tout le monde di nga di mm-hmm. parce dëgg dëgg yàlla la invitation de la télévision gëj na. yàgg na kay yow yaa gëj yàlla gëj ah. man barab di suudi dañ may dañ may dañ may seetaan. dëgg donc waruma gëj ci plateau bi. Mm-hmm. dëgg de xaw ma danga ma mere xaw ma la ba nga ba nga ba nga refusé ma dëgg de non non c'est trop sûr même àllat nga dañu ma esmalik lu tax dematu si plateau bi man na ma ne ma. xaw ma sa c'est pas. bu dee dem bi ma fi jógee dama fi def lu la naqari. Mm-hmm. ba tax wutuma sa plateau. jiglu naa. Ah, parce que ñun dañu taxaw. pourtant xeewul nag eh, sëñ bi fu ma fu ma bi fan fii wala lan mbége. Eh, bari Abdoulaye Wade ko yóbbaale euh, si pose la <laughs> pour ma répondre ah, sa question euh, <laughs> waaw euh, question yi ngeen may jégal. parce que répondre réponse yi parce que il faut que ma si dugal français pour les semis de français dëgg de muy wax France dañ ne seetaan dina def lu koy neex Arabie hmm. Saoudite euh, dina ñëw euh, bi nga commencé léegi ne hmm. dana dégg nga wax ci ki nga xam ne rek moom moo di monsieur le président Macky Sall. waaw ndeysaan. xalif nga ne nga ne xalif. mooy xalif général président yi. waaw ki xalif général des présidents. am lu fi xewoon fan yële. waaw lu garaaw euh, mm-hmm. yow mii borom nag lat menge waaw waaw dañ lay dégg ngay wax ci Macky bu dara xewul bu Macky Sall jëlee mi amoon na fi ay temps waaw waaw nga di ko protéger dëgg la loolu xewee yow kenn déggu la hmm. kenn gisu la xamuñu du du man dong du man dong <laughs> c'est pas c'est pas le seul <laughs> dëgg dëgg yàlla yow gisuñu la yow dégguñu la mhm. waxoo ci affaire yi dara mhm. ba ci rakkam ji démb barki démb bi mu génnee sax moom Aliou Aliou Sall am na lu mu wax ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, euh, waa APR donc yow nga bokk ci loolu bëggoon mu jox la parti te kenn gisu la ah, metti na de euh, am fu mu la jox soxna si buy buy buy taw kenn du fa béree dëgg de bu yàlla de bu bu yàlla taw kenn du fa béree dëgg de da nga bu mu taw bëri gël ngay su ko fa dafa am jamono jox xam ni dëkk bi dafa président Macky Sall mi ngi palais am na sécurité am na gendarmerie am na police am na armée man yoruma gendarmerie yoruma police yoruma armée. yow yaa ngi woon Lat Mbengue di. lan Lat taal nañ fa pono fépp lañ taal pono dëgg de si li ma jot am am sama kër dëgg il faut protéger ma famille aussi dëgg parce que bu ma waxee. Mhm. te du man dongu ministre yu bëri waxuñu. dégg nga ñu bëri dañu dawoon. dem ah, mi kay dañ ko bàyyi lépp moom moom. voilà lépp dañ ko bàyyi président Macky Sall ma yërëm ko. ma yërëm ko. ba nga ko yërëm parce que génn yoruma poste yu ñor. poste sa ndaw la as poste. dégg nga yebal président Fallou ma jox as poste joxuma poste bu mag. est-ce que mere ko moo tax génnoo. c'est-à-dire. mu euh, moom moom journaliste la. baax waaw waaw ci kër gi la bokkoon ci kër gi la bokk continuer ba école la génne. école CESTI la génne man si internet bi laa ko doon gis xaw ma moom kii internet la. lu tax ngeen jël journaliste internet yi teg leen si plateau télévision doo continuer parce que li mu la wax dafa jàll dafa jàll. lan la nekkee non non non non non mais mais mais. dana ko siiwoo. dana ko siiwoo. lii du lii du lii du lu ñu wax war a wax télé. dana ko liggéeyee tig diwuntu la si Sénégal dinañ tiggee. parce que journaliste internet day rataxlee. kii sag la ci dara bëgg ci fekk la ci daara ji de day wax loo xam ne bokk ci da a bëgg daara non bëgg naa daara waaye kii bëgguma ko de ah, <laughs> bëgg de wax leen bëgg naa daara loolu waaye waa ji xam naa ko xam naa ko say say la say say la xam naa ko dëgg naa ko say say mag la dëgg de li li ma la déglu ma question internet kon nangu question internet. la dafa dama ko nangu. nekkul de ah. question internet nekkul. déedéet. déedéet moom laa laaj dara. li mu poussé ma ne question bii mu la dégg dégg li mu que nee na suyoo. wax na wax loolu. loolu wax kay liggéeyoo. yow war na wax ah, loolu. yow war ngaa liggéey nga. da lay tëj. mais yow liggéey dama lay nga nekk. yow dama lay laaj nga xam da nga am auteur ak internet internet nii télé ci kaw. dégg nga bay ma. est-ce que liggéey nga. waaw soxna si loolu du question télé question internet bu ma laaj laaj ma question internet question télé laaj ma question télé laaj ma laaj ma normal. Euh, Omar da nga am loo koy laaj. waaw macha allah journaliste fan nga. Euh, nam nam nam nga sa papa nag. jërëjëf ma ne journaliste fan nga. Euh, wal fajri internet. Sonacos internet man du ma tontu Sonacos internet. <laughs> déedéet papa Sonacos internet bu dee Sonacos internet la ça va. amal non lay liggéey de. na. waaw léegi ñëwal surtout la. léegi yow na sa papa Ablaye Wade kañ nga gëj a dégg. sama nijaay la nguuram neexoon na ci yow de naatoon nga de ay ay maanaam financement wu Dubaï yeeg Émirats Doha boobu moom sa diggante ak dañ ma mos a financé Dubaï Émirats. Ah, ah, ah, yow kay loolu nga doon dox. ma ne ku la ko wax man maa man maa doon liggéeyante ay financement di ko indi. waaw mais nekkul ne dañ ma jox ay financement ma ko léegi lan li tax financement yi dikkatul. financement yi li tax dikkul président Macky Sall dama doon liggéey ak président Abdoulaye Wade. sama compétence sama xam-xam déedéet. doomu daara. bu ma demee Koweït dem Émirats. Mhm. dem Abu Dhabi. lijjanti alal joo xam ne dama ko indi pour indi ko pour Sénégal da nga dee Ablaye loolu yàgg na ko def mm-hmm. dimbali jàppale mm-hmm. jigéen mm-hmm. leen di leen jàppale li sopp ko jigéen président bi mu faloo ñu bari dañ ko wax ne ko Asmali Gueye bul jéem a ànd moom Ablaye Wade àndal Ablaye bëgg def na lii di yàqatee président nag la manque de la confiance da nga dee bi nga xam ne am na ko <laughs> si loolu ci la ñekk da nga ba tey maa ngi liggéey ba commencé alhamdulilah. war la jox sa war la jox sa poste parce que réew mi soxla na xaalis. c'est vrai ko audio. delloo Karim delluwaat ci Karim. Karim delluwaat ah, eh, ko laaj ko ci suuf. Ah, pour waxtaan ak moom waaw Karim. ah d'accord. waaw yow yaa ngi ànd ak président Macky Sall. Euh, euh, waaw. yow nga ne Karim déedéet ah ah yow ah. kay li nga yow ah waaw di envoyé Karim ay audio. internet bu dugg si loolu. déedéet yow yaa wax déedéet yow yaa wax yow yaa ne. kii nag il faut léegi mu dellu ci kàddu gi eh, eh, wax man moom laa jot moom moom mi ngi lay laaj. internet waaw wuyu question internet lay laaj. non non kay. man maa la laaj dama ni la waaw mais li ngay wax kii ma la ko wax. kan ma ko wax moo la ko wax moo ko bind jox la yow yaa ko wax. déglu ma dama déglu ma nar a. yow yow yaa ngi léegi nii yow yaa ngi Karim Wade yéen a ngi déggante ak ay audio. waaw audio yow yow kon ça veut dire que kon yow yaa ngi préparé. déedéet déedéet déedéet bul waxee noonu bul xalaat xalaat internet tëlee Karim Wade doomu da ko batase est-ce que nekkul Macky. Ah, ah, waaw loolu laa bëgg de est-ce que temps bi sauvé wu. mais est-ce que nag ma ah, dafa koy laaj est-ce que. gënul dox Macky nag. est-ce que Wade gënul dox Macky ci yow. audio yow yaa wax lii. merci jërëjëf. jeex Eh, jërëjëf mu ne mu nga xam ne rek moom moo di borom lat ménge nee na bëggul li nga xam ne rek moom moo di question euh, internet ci nuy wàccee ndeysaan di leen remercier yéen ñëpp nag ndax taxawaay bi ngeen taxawal sama taxawaay sama bi ngeen taxawee sama papa Mamour Mbaye ndax sama papa am na ko lu rax kam jooju sama papa Thiouli sama papa Thiouli nag yàlla ko yàlla yërëm te yeexa ñu papa gi bàyyi nga fi nag vidéo bu bari nag papa Thiouli dëgg yàlla Mbaye daane ñu dalal ko ko nga xam ne rek moom moo di maître Madické Niang mais dama dikkee ñu ngi leen la ñang baaloo waa sant yàlla borom bi subhaana wa di sant sëriñ sëriñ Touba di sant xalif général des mourides sëriñ Muntaxa di nuyu mbokk yi nga xam ni ni nga nekk dafa dal sa mbaxana mi dafa dëng waaw maa ko wengal ah, kii sanca rek lay def <laughs> mbaxanab ndar la waaw waaw yow noo <laughs> ko tagal doo ko tagalee da ngay nëbb leel bi tuuti la leel jaaxuj ah mu ngi si jàmm mu ngi lay mm. laaj li rafetlu bu baax mm-hmm. ni ngeen di doxalee émission bi mm. di wax ni ni ngi leen di sant di leen gërëm mm-hmm. waaw xam nga eh. fan yi aw ma jot waaw moo tax bi nga ma invité aussi daayira yi ma ne rek eh, <laughs> wallaay wallaay wallaay mbokkum taalibe <laughs> si daayira yi rek si kar gi rek si kar gi kon temps yi kon yaa ngi ci sikkar bi si loolu la nekk organisation daayira yi mm-hmm. si loolu la bëgg rek taxawaay bi nga xam ne rek moom la si Muntaxa taxawoo nii réew mi ak di wax jàmm di dox ci jàmm en tant que murid lan nga ci gisee noo ko gisee waa sëñ Muntaxa mooy firi mm-hmm. mooy firi jàmm ah Muntaxa mooy firi jàmm al Muntaxa al mm-hmm. <laughs>

<laughs> sooy bu damay bañ mu gënal lii rek. papa demal. mag lu mu def baax na demal papa. jàmm ak jàmm ci la lépp xaj sax. waaw suñu muntaxam man mbég mi la mooy jàmm ji demal rek. waaw ma ne ko xam al muntaxaa mu ne ma al muntaxaa <laughs> mooy firi jàmm xaabaabal. suñu <laughs> muntaxaa kay mooy borom mbég mi demal rek xaabaabal. wallaay dama fàtte. te mbég ci la ja ngi ci biir jàmm dégg nga mbég ci la ne. mbégte jàmm mbégte jàmm si boo amee mbégte am nga jàmm koo amul mbégte amoo jàmm seet leen ku am mbégte ku nekk am na jàmm léegi comme poli comme comme defatoo politique ah? fu daayira yi toll ah daayira yi ah, ñu ngi ci daayira yi sikar est-ce que jotul nga dellu Hizbut Tarqiyyah ñu jàngalaat la tuuti waaw ñu ngi ca ña nga ca te mooy jàmm. wala ngeen jàll ci leneen waaw mais xam nga ne gaa nitu daaraa ngi fi. mais continuer li nga war a wax rek ya xanaa yeex ko seetlu. ak xër ak xër. teel a na seet xër rek ñun murit leen dañu xër. dañoo xër rek moo tax nu wax ba yàgg si fi. yaa daanu yow it yaa ma ba max. al muntaxa jàmm ci loolu yëpp tamit pièce la. waaw waaw wax ni loo laajati sax lu mu laaj. lan la laajati loo laajati xamatuma ko. xam nga yow politique too laaj la dara ci réew moom yàq laaj la quoi. du taay daay ko dara ci daara xam na lu bari. noonu kay dama ko bëgg laaj ba xam fan yi nee na levé nañ affaire fu ngeen toll ci programme yi. waaw programme yi cant yooyu. macha yi ak waajal hmm. kii yeeg màggal yeeg màggal gan ñëwagul de waaw yi laa ah, hmm. waat na waaw ziar yi léeg-léeg ñu ngi amal ay ziar ak hmm, dégg naa dégg naa temps yi da nga am ay ay taalibe da ngay seexalaat <laughs> waaye non dee bàyyi li ngay wax bul hmm. bul la def ba dugal ma si kàmb bi voilà bul xaabaabal di wax ni réew mi moom neex na réew mi neex na ndeysaan mi macha allah waaw parce ba añee ba suur naan sa café dem daayira lekk mbiskit neex na. Mhm. Sénégal dëkk dàq ko. Mhm. dëkk dàq ko waaw wax mhm. dëgg fa yàlla. ñu ngi mhm. ci xaalis bi joxe ko macha allah def si wàllu jàmm ji. Mhm. gis nga ko prisonnier yaa ngi génn. Mhm. jàmm yàlla fi yàgg ku génn gërëm kër. dëgg la yàlla fi yàgg parce que waa ji ma ma ma ma ma kii day mer. mu dagg la dëgg la waaw mu am ku la ne yàbbil. moo tax sëñ Muntaxa lii mu def nii moo tax jàmm am. su dëkk bi xanaa kon sëñ Muntaxa tax konti kii waaw waaw almuntaxa est-ce que xanaa mun muntaxa moo débloqué compte yi kon. compte ya ah, compte yi ma déggoon dañ koo bloqué. sa compte yi ñu bloqué woon loolu la bëgg a wax. compte sëñ yëpp damay laaj rek. compte du xibaar. man nag daam man nag daam lu ma gis. ba nga ne bàyyi nga politique. waaw ak sa profil ci réew mi. waaw déggoo nga ak ñëpp murit nga ñëpp xam nga. kër goo dem kër goo dem ñu ibil la ko. looloo ko jotul président teg la ci wetam. pour nga dox ci digganteem ak këru diine yi. waaw këru diine yi moom digganteem ak këru diine yi amul jafeñ-jafeñ. ndeysaan moom kañ digganteem ak activiste yi fa la yëngoo. dëgg la ndeysaan. waaw mhm. xanaa rataxal rek diggante activiste yeeg Macky. parce que foofu la mbir yi jaxasoo. Mhm. waaw parce que xam nga mag yi nun fexe na ba yóbbu nu retraite. dëgg la waaye bi mu retraité dafa am xale yu jóg yu actif. Mhm. nekk xale yu ndaw lii tal booy. mën a yëngal yëngu yëngal. Mhm. waaw xoolal li xew. Ah. toj nañ gosaas toj fépp li ma daan wax naan dem toj ko dem fële toj ko ndekete xale yee dàq toj. dëgg la Ousseyn ba ca. Cees toj ko. waaw dem ba ca Mbuur toj ko rajax Kër Masaar toj ko. loolu la. ñu defe ni fa la ñuy yem. waaw ñu defe ni fa la ñuy si naka yow loo bëgg a <laughs> nag sa taalibe rax na de jamono si ta yow doo taalibe piir de sa taalibe am na yooyu dugal si biir taalibe gi <laughs> waaw. waaw jërëjëf almuntaxa waaw mooy mooy mbégte mi ah, mooy lan xanaa laaj leen ko rek ñu laaj ko doomu daara bi xam nga mooy lan loolu après dem ci waxlaan hors antenne dina la ci dimbali hors antenne pour beneen yoon waaye li ngay def <laughs> mooy lan mooy mbégte bi. mooy mooy lan. dugal nga de. barke Sëriñ dugal nga dugal nga de. yàgg sa man leeral na man sa taalibe des na woyu la. dëgg la internet la <laughs> ba jiital la kay laa yërëm. sëriñ Madické Niang. ay ca waxtu yi jeex na suka almuntaxa lu muy firi noppi rek ñëw daal ñëw daal waxtu yi jeex noppi rek bàjjan ko jëf waaw waaye nan ko ñu dimbali si loolu waaw ba ñi ci Facebook bi dinañ la ko ayca mu nekkoon euh, moom moo ah, di maître ma dikke ñang Ballo euh, Cheikh Tata Khoudia donc dinañ joxe rendez-vous suba incha allah rabbi ci beneen numéro euh, Nepad musical <laughs> ajaratu waaw ayca ñu nuyu suñu bàjjan boobu Adja Khoudia ñoom aleeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu Serigne Saliou Mbeng ñu ngi lay ziar ak Alaaji Babacar Mbeng moo Adja Aïda Mboup foofu la ca jàmmalay de di nuyu Massa Ndiaye nag nee na mi ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ma nga foofu léegi waxuma Mbassa de masa Ndiaye <laughs> ah, ak waa Columbus ayca ak Mara xaritu Baye Mamour moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci Anta ak ñoom Maje tout la famille Racky maa ngi lay nuyu ak Mima. ayca ñu daal di tëj bile émission bu yembee ba ngeen mën ko gis ñi ñoo ci jàpp Ablaye Diallo euh, ak euh, Keba Thiam euh, Babacar Diouf l'homme de Babacar Lo le jeune ñu ngi lay jaajëfal luy fay également ñu koy jaajëfal jaajëfal également ñu nekkoon ci régie bi muy Jacques Gabriel Prera.